nag Yékini Junior laa soxla Yékini Junior mu bëri keneen foofu Yékini Junior laay bëri ñëw maa ngi sant waa kii jiwaay bi yëpp aw ma seen fay jiwaay déglul Balla Gaye li mu lay wax dama ni Balla lii nga def rek nga war a def heure bu xale xewle ànd na ñoom ñoom ñëw lu xew ñu géré ko mais gàcce nga ma fii woote dajale xale yi woote Guédiawaye gépp nga tijji ndam tijjee ko ndam yow ñëw tey indi say rak c'est normal mooy li ma waxoon bi passé gars yi ñu wàcce micro yi ñu def nank rek boo gisee sax mbër li may dafa am nu mu demee woon dootuma ko may kenn muy suma bu ne ñun waa Guédiawaye yëpp kii ñoo bokk daan na combat bi yëpp muy boxe muy bëre nee naa man bu ma ñëwee daa fekk nga liggéey ba dee moo tax ma ñëw bu liggéey woon du ma ñëw yàlla xam ne aw ma ci tiitaanga aw ma ci dara contact naa ngi moom léeg mu force man ay jël te man force man jël ci entraînement yombul kon bon frustration mm-hmm. yoon bi mu tegu nii ñun ñoo ciy jël suñu motuwaay ku bañ a teggeeku. dafa am lu géejewaay def ci làmb. lu doy waar xam nga Balla Gaye dafa romb beneen Balla Gaye ci biir école bi. waaw am yeneen yeneen moom da cee bokk ak ay moromam. kon donc ñun lu ñu mun. sas ko entraînement gérer ko ba yàlla dafa ko jàmm fu ñu dégg Balla fu ñu dégg Gouye Gui fu ñu dégg Lac de Guiers fu ñu dégg Sa Thiès ñu dégg ko te allah bu neexee yàlla yaakaaru géejewaay la.